kër wala sa terrain wala sa appartement wala sa studio si ay photo yu euh, leer nañ ak ay vidéo yu doy waar dal di koy posté sur sunu page bi de social shopping immobilier bu ko defee yeen ngeen wote ci 77 417 77 40 wala 33 835 08 67 ak social shopping immobilier jay kër neex ci réew mi. Cheikh Abdoulaye à la présentation tey na ñu ngi fii ci Cambérène ku ne xam na ne suñu maam Seydina Issa Rouhou Lahi moom moo woote woon ren nag war a nekk nag cent quarante deuxième édition bi waaye nag balaa ñoo dem fenn du ma si wet benn yoon ndax dama see ànd ak ma Mamadou Dia ma bàyyi rek mu nuyu ak yéen Oustaz ah fa tabarakallahu alhamdulillahi alladi munawwiril absaari bi nuuril maarifati wal yaqin wa sallallahu wa sallama wa majjada wa man ursila ila rahmatil alamin ah assalamu alaikum warahmatullahi taala wa barakaatuhu di nuyu macha allah mbokk yëpp di nuyu macha allah xalifa généraux yëpp. di nuyu xalifa général de Layènes serigne Mamadou Mokhtar Laye macha allah di ñaanal yàlla guddu fan ak wir ci barke Seydina mohammed di nuyu macha allah soxna rahmatullahi di la ziar. ما شاء الله دي allah السلام عليكم ورحمه الله عليكم السلام دي ما شاء الله ah macha allah tey ñëpp ñëw nañu. billaay wallahi al azim ñëpp kontaan nañ tamit. Mm-hmm. parce que lu góor ga waxoon ne aji bu ba mu ne aji bu moom tey moom ku ñëw moom di nga xam ni gars yi wuy si nañu moom dëgg la kon fa tabarakallahu di la bàyyi nga dawal si sax dëgg la comme oustaz ni nga ko waxee rek ah ne naa la gars yi wuy si nañu ah ku ne mën na ne appel bi adduna ñoo ko nam woon parce que toog nañu ñaari at appel amul ñu ne ndax la ñu ne ñu ne ndax covid 19 ñu gis ren ah yàlla def si ndox sedd covid bi gaa jeexul sax mais wàññeeku na sëñ bi woote ne aji boo daay laay ah ñu gis mbooloo bi ñëw oustaz boo xoolee alentour yi sa xol day sedd ndax balaan bi wër na fu ne tey. dëgg la mhm. noonu la. parce que ba mu nee aji bu. Mhm. wuy si leen. dëgg mhm. mais nit ki nag booy wuy ji nag dafa laaj nga set. dëgg lu set. soog lu weex tàll. dëgg la xol yi lépp nekk benn. dëgg tey jii tey boo laajoon tey Iblis tey naan tey man Iblis man seetaane man kontaanuma. dëgg la seetaane lu ne parce tey bàyyi laay moo woote. tey tey koo xool tey xol baa ngi macha allah kontaan sol lu weex tàll fas yéene toog déglu fas yéene toog wuy si maam Baye Laay. dëgg la kon gars yi namoon nañu jotaay bi lool. Mm-hmm. waaye macha allah ya lu ñu fi ñaanta yan ko yàlla nangul. amiin yaa yàlla may si barke Seydina Muhammad. amiin yaa rabbi sallallahu alayhi wa sallam waaye oustaz comme niñ ko ubbee rek ah. ñu ngi fi tey si Cambérène. ñu fas yéene màggal cent quarante deuxième édition. Mm-hmm. suñu maam wootee. waaye nag oustaz duñ def lu dul rek. jéem a dugg rek xool lan mooy xew si biir parce que mbedd bi moom moom jax na moom dañuy doxantu rek <laughs> jéem a xool lan mooy xew si biir <laughs> ah waaye tamit nag duñ ci wéet na dañ ci ànd ak ak suñu caméraman <laughs> duñ def lu dul ànd ànd ak Modou Gueye rek dem xool lan mooy xew si biir ñu indil ko askan ni ñu seetaan léegi use dañuy gëna a kiiwaat encore nuyo yi gis neen ko sang bi duggu ci na sank am ah. waye gis ñu oustaz ñu gis ni sang bi bi mu yegsee sank buntu bi xaton na torop buntu bi xatna ba nit ñi commencé buuxante ah nga gis ndaw yi san xol nu mu sédé genn bi tamet bi mu gëna tamet ci xabru mamam tamet nonu la xaté waye gis nañ tamet suñu ginaaw ni bi mu génnee ba dem tok ñu dalal ko ndaw yaangi juk di dem di ziyaara di fele oustaz yow bi nga gisee sang bi bi mu duggu see xat-xat bi allah tey ñëpp a kontaan. Mhm. parce que gars yi dañoo namoon appel. billaay dañ koo namoon tey lii da koo wane. Mhm. dëkk bi xat na jumaa ji xat na xabru bi tey buñ ci doon dugg boo gisee xataay sa yaram day daw. Mhm. mais macha a a kontaan soxna Fanta. lii la yàlla bëgg. te lii la yàlla d'accord. kon nag macha di ñaan yàlla. ñi may ñu ko ñu di fekke ay at. amiin yaa rabbi te lépp lu fi waaye ñaan yàlla ñu koy. amiin yaa rabbi si barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa Abi Yarabi Oustaz di la jaajëfal. jaajëf yéen tam ñu ngi si ànd wér. mënoon nañu woon xam tur bi ak foo jugee. man maa ngi tudd Seyni ture ni représentant UCG. nekkoon fi euh, si bés bu màgg bi su fekkee permettre nga ma wax ci. di sant yàlla di julli si yonent bi. di wax alhamdulilah rabil alamin di ñaanal yàlla ñëpp jàmm. surtout sunu coordinateur Mass Thiam. bi nga xam ne moo ñu jox.

Barthiam jox ñu autorisation ni dem leen ngeen wax ak nit ñi ngeen fexe ni leen ñun dañu indi le matériel pour nettoyer mais avant de nettoyer il faut que yeen ngeen dem waxtaan ak nit ñi ñu jappalé leen ci cetal googu ba Cambérène delluwaat na mu meloon. lool mo ñu fi indi woon ñu ñëw fi un mois di sensibiliser les gens ay 16 CG Barthiam dolel leen jox leen le matériel qu'il faut mu ñëw ñu nettoyer Cambérène ba mu set. tey ñu ñëw marqué waat suñu présence pour waxaat nit ñi ni UCG est toujours là donc bu kenn tilimal képp ku sànni dara na nga ko for ba buñ fi jógee tey après appel bi Cambérène continué waat mel ni mu meloon xar kam Cambérène a waaye papa ñu gis ni bis bi tey màgg na parce que toog nañu ñaari at. ñaari at lañ toog amul woon parce que nag gàllankooru Covid ñu gis ni malgré que Covid bi jeexul mais yàlla def na si ndox bu sedd ba Covid bi wàññeeku naa ren ñu ubbi ko appel bi muy nekk cent quarante deuxième édition bi papa bi nga dugg see nga gis waa Cambérène génn si ak sànq bi xalif bi dugg see ni nga gisee xat-xat bi nit ñi nuñ doon réagir tey boo amoon loo ci wax la nga mën. man li ma ciy wax rek mooy euh, maanaam ku nekkal yàlla yàlla nekkal la man loolu laa gis. ndax man mi romb na kenn ñewul dajalo sama biir kër mais mom dañu wote rek ñu ñew fi cela veut dire que amna na lu mu fi fi Seydina limam liggey na liggey lo xamanteni yalla moko fayé li tay kep ko gis ni ñuy top sey seta ki seta ki sëtaat di len top di len tarbi yu fekk ka amna lo defal yalla mais yalla kuko defalul dara do gis dara loolu kese la man loolu la gis bi mu dugg sey sama yaram dafa daw man ni man euh, yalla nama Yalla may ma am lu melni yalla nako na may doom adam yi fi teyup ndax limam liggey na li kiko gisul liñ nane wedd wedd gis bokku ci

lu amul on ne peut pas toucher ça mais ça tout le monde peut toucher yaa ngi fi keneen a ngi fi keneen a ngi fi cela veut dire kii def li ki tax lii am am na lu mu defal yàlla ba yàlla fay ko loolu. ma bàyyi rek oustaz tamit bu fekkente ne am na kaddu yu mu lay laajte mu laaj mu sànni ko ci ñox léegi léegi. waaw tabarakallahu sëñ ziar parce que wax dëgg yàlla maam Baye ba mu wootee ba mu ne ajibu ku war a wuus dafa war a set. dëgg la parce que yéen itam moo ne an nazaafatu minal minal iman ba mu ne ajibu daax yàlla kaa leen wuy ba gars yi wuy see dafa ne ku parce que war a wuy si faa nga set mhm. sa lu weex mhm. macha allah kon sànq sa kàddu gi sànq dama koy dëggal mhm. yal na yàlla barke waaye dina laaj macha allah lan moo waroon appel waaw man dama gis ni c'est sama jàngatu bopp bu ndaw maanaam dafa woote te bu ñëw ni ñëwee na ñëpp sol lu weex cela veut dire que man ak yow ak kii ak keneen ñun ñëpp ñoo yem ca yàlla moom bu muy woote mooy discrimination la doon bañ nee na bu doon sama sago ñëpp dañuy ñëw fépp mu weex cela ñëpp tolloo ñëpp di doon benn man loolu la yëg bi ma ñëw fi dama yëg ni man ak ndaw si man ak yow ñoo bokk benn la ñu sëkkalam fa yàlla te loolu la Seydina Limaamu woote man loolu rek laa sentir yëg ko mu daw sama yaram lool te lii ku gis lii tey xamal ne yàlla ànd moom te yal na yàlla yokki leeram lépp li nga xamante ne fii ku fi yàlla jéggal la say bakkaar ma du ma terminer nag lu dul di gërëm sama chef de service ki nga xam ne mooy sama coordinateur national muy El Hadj Mass Thiam koo xamante ne bi ñu ko waxee affaire laayan laay lañ wax mu ni dem leen lépp lu ngeen fa def man la lu ngeen fa soxla wax leen ma lu ngeen bëgg wax leen moo ñu def macha allah ñu ngi koy remercier bu baax wante nag ku ku lëkk-lekkee ñu ko gërëme coy ndax ñun bi ñu dugg fii Cambérène dafa am si ay loxo lu mu jaaroon muy Alaaji Samba Laay taxaw mu jël ñu wàccee ñu si këram def ñu daluwaay fu ñu dugg mu dalal ñu fa amuñu fii xat-xat amuñu fi sens interdit ñu ngi koy gërëm di ko sant Samba Laay te muy xale bu ndaw ñu mun koo jur wante mu won ñu ni carrément ne man Seydina Limaam rek moo ma doon Cambérène rek moo ko ñor yal na yàlla taxaw la oustaz yow tamit yal na la yàlla yokk xam-xam yal na jekk leeral yal na yàlla tàllal lamiñ bi leeral ko muy wax lu baax rek di jaaxle Mustafa bi képp yàlla saafaral si yaa na kontaan nañ yal na yàlla barkeel yàlla nangu ñaan ci barke Seydina Muhammad yal na yàlla nangu ñaan ah yow it tamit yàlla la fi yàlla bàyyi ah nga yàgg di jiite coordinateur bi ah ak mépp mboolem jullit ok ok jërëjëf papa ñu ngi lay jaajëfal bu baax waaw ayca ñu ngi taxaw ki nga xamante ni moom moo di Mamadou Lamine Laye Ndoye bokk ci ñi nga xamante ni ñoom ñoo di vision 129 yéen a ko gis nii yaakaar naa ne bokk ñu ci ci ñi ŋànk li nga xamante ni moom moo di wàllum communication bi gis ngeen appel bi ni mu yànjee macha allah ñun am nañ ci liggéey bu am am solo am ci taxawaay boo ama am am solo Mamadou ñu nuyoo bàyyi la nga nuyoo ko mbokk yi. bismillahi rahmaani rahim auzu billahi mina shaytaani rajim la hawla wala quwwata euh, ñu ngi ubbi ko suñu tudd borom. tey ñaanal suñu xalifa mu Mouhamadou Makhtar ibnu Seydina Mandione yàlla yàggal ko fi mu ak wér donc mu yàgg ci kanamu kuréel bi ñaanal yàlla aussi njaboot gi nga xamante ne ñoo ko wër yàlla jubaale leen ba ñu mën ko accompagner si mission bi ko yàlla dégg waaye di ñaanal aussi ñi nga xamante ne ñooy xalifa diine yëpp këri diine yëpp xalifa incha yi fa nekk yàlla leen fa yàlla bàyyee lu yàggaa yàggaa yàgg di leen nuyu aussi yéen waa chaîne bi macha allah. yaakaar naa ne nuyoo yaa ngi noonu mu nekk am solo waaye sang taxawaay bi lañ bëgg xam tax seen taxawaay ci appel bi. waaw vision 129 yaakaar naa tey lañ ñëw sol ay tenues ngeen gis ñu nii mooy tenues ñu sol. muy euh, parce que protocole bi la ñuy gérer maanaam kër euh, sëriñ yi nga xamante ne sanga yi war a ñëw taxawee bés ñooy nekk gérer protocole bi maanaam synchroniser de telle sorte que ñoom ñëpp ñu mën a génnandoo buñ génnee aussi disposition oto yi nu ñuy placé ak euh, numérotation beeg yooyu noonu pour que ñu mën a génn sans que am benn problème donc ñoom ñooy cadre kër gu mag Yoff ànd ak ñoom ba fi nga xamante ne nii mooy jàmmalaay ñu continuer jiite protocole bi de bout en mais yemul foofu loolu jour J bi la dafa am lu ko jiitu yaakaar naa yéen nettoyage bi ñëwoon ngeen gisoon ngeen ni mu demee day am trois semaines yoo xamante ne nii trois semaines nettoyage yi nekk dañuy nettoyer jàmmalaay nettoyer gox yi euh, yoon yi nga xamante ne moo nekk Yoff waaye nettoyer waale aussi kër xalifa bi ak kër ay rakam yi nga xamante ne ñoo koy gunge waaye bu buñ paree aussi si trois semaines yooyu am na benn semaine sociale bu am solo plus de mille deux cent kits alimentaires kit alimentaire maanaam gën saa la saaku ceeb la bu ànd ak euh, diwlin mille deux cent ñu jox ko mille deux cent famille ni ñu koy defee mooy lan dañuy jox famille yi bu si nekk bon famille laa wax du nit mën nañ fekk kër goo xamante ne par exemple am na dix personnes yi fa nekk mais kër gi la ñuy jox benn saaku tëb kër googu dem ci beneen kër pour mën a toucher le maximum de personnes yaakaar naa social dafa am solo ci ci kuréel gi ci collectivité bàyyi laay ci loolu noonu la doon xiir loo am téye leen lu ma am bokk ak yéen yaakaar naa loolu borom xel buy xalaat war na mën a xam ne ab sas la yow aussi loo am war nga ko mën a bokk ak ñi nga xamante ne moom moom nga ko seexal donc ci dynamique boobu noonu la ñuy inscrire tey ba aussi ren innovation majeure bi sax booy seet ci biir mooy euh, yamul ci laayeen yi kese ndax ren dañ jël aussi plus de cent vingt sacs jox ko ñi nga xamante ne mooy ñi dëkk biir man teg ko ci loxo imam ratibu ak jaraafu Yoff yi teg ko seen loxo ñoom ñu distribué ko tasaare ko ci penc yi nga xamante ne moo am Yoff yaakaar naa yamul ci loolu tamit mais ñun dañ jàppee suñu bopp yi ay ambassadeur u enseignement yi nga xamante ne moom la Seydina Limaamu alayhi salaam alayhi salaatu wasalaam di jàngale teg client dafa war a am benn taxawaay bi fi foo dem ñu ne kii kat ab laayal la si ak ràññeeku ci ay jikko ci ay aussi valeurs yoo xamante ne nii moom nga war a incarner ñun aussi ci loolu lañ nekk am nañ perspective yu am solo ci ci dans ce sens macha allah yaakaar naa ne nekk na liggéey bu ama am solo ndax euh, ab lu weesu wàllum communication bi ci social bi dañu cee yëngu bu baax a baax a baax yaakaar naa ne loolu day confirmer njàngaleb Seydina Limaam alayhi salaam ci ni yaatal leen sàkket yi ndax gan yaa ngi ñëw mm-hmm. jël euh, lu ngeen am jël leen te lu ma am ma bokk ak mu ne ab sas la sas la si ab laayeen ba nga xamante ni lu ma am war na koo mën a bokk ak jaam yàlla yi yaakaar naa ni vision 129 ci loolu la nekk loolu nekk na lu am solo waaye suba naka na ngeen koy waajee rek ci tënk pour yoof suba suba waaw même dispositif bi déjà ndaxte tey euh, niñ cadrier ba ñu accès fii si jaamu loolu lañ nar a defaat incha allah suba buñ ko defee aussi Euh, bu ñu ñëwee ba biir euh, urum bi urumu jàmmalaay aussi mm-hmm. taxawaay boobu la ñuy am organisation bi mën a jaar yoon. mais di ngeen gis suñuy mm-hmm. benjamin ndax euh, vision 129 am na ñun. mais am na aussi suñuy benjamin maanaam suñuy rak. xale xoolee ñu ngi sol yenn percal ñu tamponné si vision 129 te nuyu c'est un peu différent. ñoom da nga leen di gis ñoom ñuy doxantu ci biir nit ñi di joxe ay ndox ndox yoo xamante ne ndoxu jàmmalaay la mm. ñu jël ay bouteille euh, branding ko def ci vision cent vingt neuf mais ndoxu jàmmalaay lañ ko sol robinet bi lañ ko solee di ko jox jaam yi fii di ko distribuer aussi ci biir nit ñi mm. taxawaay boobu noonu lañ ciy am mm. ba yàlla aussi wane la waa ñu yeneen jamono ndaxte ñaan nañ am def lii di li ñuy wax amélioration continue ren daal lañ mille deux cent famille déwén bëgg nañ laal deux mille quatre cent famille ci baaxu Baay Laay woo bay Seydina Issa Rouhou Laye incha allah rabbi yàlla na ko yàlla def jërëjëf Mamadou Lamine ñu ngi lay ziar bu baax ah. salaamaaleykum mbokk yi kon ni ngeen ko gisee ah, ñu ngi fii ci Cambérène tey si appel bi cent quarante deuxième édition bi waaye dama am gan gan boo xamante ne mën naa ne gan bu am solo nit ñi xàmmee ko lool ah kenn dootootu ko présenté ci muy oustaz medun lay ma dalal ko nak ci sama plateau du def luddou bay ko rek mu nuyoo ak yemi di ñuy oustaz Medoune lay no def. Ah, bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin gina ban sante yalla julli ci yenenbi sallallahu alayhi wa sallam ah, di ñaanal sunu khalifa mam Doudou Makhtar mu sunu mam Seyna Mandione ñu koy ñaanal bu baax yalla fi yalla yagal ka fi tamu and ak wér di len nuyu yentimit di contane si dalal bi nga xamne mom ngeenu ngeen seen seen YouTube bi di ñaan yàlla yàlla na ko yàlla barkel yàlla na ko yàlla gën a kawel bu ko defee looloon doon tijjee. rabin yàlla na yàlla nangu ñaan yi San Médoune bu ñuy waxtaanee tey dañuy waxtaanee li am li am solo mooy appel appel boo xamante ne suñu maam Seydina Issa Ruuxu moom moo ko doon woote fii ñu toog ñaari at ci ginnaaw amul woon ndax gàllankooru Covid bi mais ren yàlla def ñu woote ko ñu ñu di la laaj rek noo gisee initiative boobu noonu. Ah, macha allah di kontaan bu baax appel bi euh, Seydina Limamou moo woote appel bi dañu nekk fii si bërëbu Seydina Issa fi la ñuy tuddee bi ndax bu nu ci alquran yàlla def ne wa utul buyuuta min abwaabihaa kër booy dugg ci kër da jaar si bunte bi Seydina Issa nag moo woot muy Seydina Limamou alayhi salaatu wa salaam moom mooy buntu Seydina Limaamu ndax moom ci ay waxam sax daan na wax naan man maay sama buntu baay képp ku bëgg a dem sama baay foo nga jaar ci man moo tax chaque jour bu ñuy tëji appel bi nga xam ne moom lay événement laay bi rëy dañ koy ibbee fii si si euh, si Cambérène ibbee ko si raw doom bu tedd bi nga xam ne mooy seen di am contentement bu baax nag ndax nii nga gisee ahlulaahi ak seen yëre yu weex yu sell yiw yi ñaari at appel amul waye lol dang ci jangat jangat bu reuy liñ ci jangate moy nit ak tollu rek kilifa dafa am solo ndax bo amé sa kilifa mune la bul def waro ci am kaddu gi ñaaw parce que dafa am lu ko waral motax ndax bu du won febar appel day am sax ané mais ni nit tamit ñu nekk ño xamné ño am war ma leen ci seen kilifa ndax kilifa kilifa bi ba waxé ma sha allah ñom ñep dañ ne teg kenn ku si nekk di ko appel sa kër mu neex loolu nag tey nag bu yàlla dogalee ñu indiwaat ki fii si jaamalaay bi macha allah dañuy sant yàlla bu baax alhamdulilah. yàlla na sant yàgg waaye gis nañ ni ren dañoo indi tam yu am solo ñu ne le rôle à ñu ne ban rôle moom la ñu war a joxe éducation xale yi buñ leen di yar naka la war a def ba xale yi am yar jamono ji ngi toll. ah macha allah yar moom lu am solo la. te nit pour nga am yar foo am diine laa diine li man laa amaanatu loxo soo amul diine doo am yar moo tax Seydina Limaamu alayhi salaatu si ay jàngaleem maam libaas ñang way ko dana tàmmal nga say ndaw ñuy xeeñ ci yoonu yàlla bay ma kër Seydina Limaam boo fi ñëwee xale yi lanu ta la tàmmal ñuy xeeñ ci yoonu yàlla ba nekk mag ndax ñëpp xam nañ ne soo nekkee xale seytaane yow la gën a soxla que ki nga xam ne dafa dem ba retraite nga xam ne moom leer na ko ne jàkka ja moo ko war mais ki nga xam ne moo nekk ndaw seytaane da koy soxla pour mu bañ a jëm ci yoonu yàlla moo tax maam libaas ngi way ci ay baytam naan bul déglu gaaya regga bay dox di puukare ñu ne ko lu tax mu ne lu dul diine du teggin danoo mel ni ñuy sabe moo tax Seydina Limam boo ñëwee ci këram da ngay gis xale yi ñun ba nu nekkee ba as lañu tool lañu xirtal suñu bopp ci yoon yàlla ba tey macha allah néegatunoo bàyyi yoon bi ndax moo nu wan yoon bi tàmpeel suñuy tuur fa diiwaan yow yaay borom diine kon lii nga xam ne moom la Seydina Limam def képp kenn képp koo xam ne yaa ngi wuyu kilifa rek lii mooy sorul si islaam diine nag. dafa nekk loo am solo moom la sang bi Seydina Laay di di waxtaan ni Seydina Issa fi la ñuy tijjee ñu amoon thème bu am solo thème bi nag dafa jëm si wàllu yar te ñëpp xam nañ ne yar dafa am solo ci àddina ñeent jikko moom laa lay wax yi nga xam ne comme dañu nekk si bërëbu Seydina Issa foofu ñu jël si ay jàngaleem ndax moom dafa fonkoon xale mu ne ñeente yi su fekkente ne jël ngeen ko ngeen teg ko seen kanam maanaam dinga am tarbiya di nga am yar dinga am éducation bu baax te ñeente yi moo lëmbee àddina benn bi si njëkk mooy aljidaalu mooy dagg sant dagg sant ku xool internet bi am na ñoo xam ne ay gor ay gor lan ñu ngi leen jël ay kàddu yu ñaaw di leen ko sànni si biir internet man internet bi dama ko tuddee mbedd mi ndax foofu moo gën a gaaw pour xas nit wala pour toloxal nit ba maam Seydi nag terenu ko si ay jàngalam ndax ku amul yar di nga tiim nit xas ko di nga tiim sa yaay xas ko di nga tiim sa papa xas ko maam Seydi nag moytu leen aljilaa dàgg sant wal miraaw ak werente xoolal làmba xoolal ñi bëri ñi nga xam ne dañu génn àddina wala ñu jam leen wala ñu nangam xeex li ko ëpp benn mi ngi si werent te koo gis muy werent ndam du dem ndam du ñëw kon bu boobaa catastrophe day am bi si des mooy atasaaful mooy suufalante nit waroo gis sa mbokkum julit comme yow yàlla wax ci alxuraan yi inna akramakum indallahi atqaakum nga jël nit di ko suufal yooyu yëpp ay jikko la yoo xam ne Seydina Isa daf nu ko tere te nit bu amee yar xam boppam xam mooy kan du xas kenn ndax kuy xas rek yaa yaa jago kon jikko yi mooy jikko yi nga xam ne nit ku baax wala nit ku am yar jikko yi nga xam ne Seydina Isa moom la jàngale ku ko ku ko jëfandikoo rek macha allahu rawatina thème bi nga xam ne moom lañ joxe si wàllu éducation ndax yar dafa am mooy baasu lépp loo gis si àdduna bërëb ba ngay liggéeyee sa diggan diggante jëkkër ak jabar diggante famille bu nu amul yar bu fa amul lekk macha allah catastrophe day daal di am foofu moo tax ren te bàyyi laay daan na wax naan man maay solution jamono roy leen ma samay wax ak si samay jëf bu ngeen ko defee dinaa leen teg si yoonu mucc te bàyyi laay thème bii nga xam ne moom lañ joxe daf si insisté woon si ndaw ñi nga xam ne dañu war a am teggin am yar nekk ci keppaaram rawatina yëre yi weex yi symbole bi loolu moom indi mooy ñu ñëpp ñu maase kenn bañ a sànni kenn kàddu gi ñaaw ndax yàlla wax nag ci alxuraan ولا تنابزوا بالالخاب بيس اسم الفسوق بهل الايمان ومن لم يتوب فاولئك هم الخاسرون لول موي جانغال سيدنا الامام عليه الصلاه والسلام واي نا دوما ديف لول ريك جوخ استاذ محمد موم تامل مو ام كادو يوم سي ساندي ريك آه، بارك الله يا استاذ نغي لي زياره بو باخ دي كونتان لول واخ دغ يالا سي خم خم غو لافير بي في جيني واي دي سيرني لام سولو لي نتو دو موي ام كليفه jamono ji léegi nit ñi xale yi léegi nangutuñu am kilifa ñu bëggoon ñu bëggoon da wax ñu fi njëriñu kilifa njëriñu kilifa euh, loolu la fi kilifa moom bu nu wax du sori du du du du bari lu lu yem lay nekk waaye ku ko dégg ndax yonent bi day wax ne man laa waliya lahu fa seytaanu waliya ku amul kilifa seytaane di sa kilifa kilifa nag rôlam mooy gis loo xam ne da lay demee si safara mu teel la gàkk gàggant mais yow mi nga xam ne yaay ndaw ki nga xam ne moo lay gàggant da war a xam loolu la la bëggal parce que léeg-léeg ñun ba nu nekkee ndaw da ngay gis sa benn mag da la doon duur nga defee ne daf la bañ fekk bañu la mais ëllëg boo demee ba mag da ngay xam ne kii sa teraanga la la bëgg moo tax mu la daan dóor si jàngi moo tax mu la daan dóor si dem jàngi daara ji moo tax mu la daan dóor si am comportement bu baax parce que réew mi fi mu toll nii comportement bu baax daf si am solo te nit pour ñu fonk faw sa comportement baax sa comportement nag pour mu baax faw nga am kilifa man lam yaxrif nafsahu laa yaxrif mawaajibahu nit boo xam sa bopp doo xam li la war te pour nga xam sa bopp nag faw nga am koo koo bàyyi sa ginnaaw xel ki ngay bàyyi xel sa ginnaaw mooy sa kilifa su waxee la wax nga xool ndax am na njëriñ wala amul njëriñ parce que yàlla wax na si alxuraan ne sa sa waajur sax su fekkente ne daf la def nangam ak nangam daf ne wasaaqikuma fii dunya maxruufan nga jaay ak ñoom njëkk ak dara loolu nag li tax yàlla wax ko muy cëru dox kilifteef parce que nekk na si jamono boo xam ne ku amul kilifa rek jinne di sa kilifa te yaakaar naa ne am kilifa moo gën ñàkk kilifa ndax ku amul kilifa di nga gis koo xam ne am na kilifa raw la foofu ndax ku amul kilifa si jamono ji doo dem kon kilifa dafa nekk loo xam ne dafa am solo rawatina si ndaw tey jii nga xam ne ñoom ñoo fi nekk di ñu bàyyi xel yaakaar naa ñoom ñoo gën a war a am kilifa ndax àdduna dafa am fu mu toll sëy naa mi wax léegi day wax si ay kàddoom naan xale ko xañ am ak jàng xañ nga ko lu bari te loolu pour nga am ko foo nga am kilifteef ndax boo amul kilifa doo jàng soo amul kilifa doo am xam-xam kon yaakaar naa kilifa dafa am solo si doomu aadama baarakallah yaa ustaaz waaye waaye di wax rek macha allah yàlla nar ñoo xettali moo tax mu yónnee ñu Mame Baye parce que wax dëgg yàlla ku xool ku xool laayeen yi yar gu nekk si ñoom macha allah parce que yéen dafa waxoon ni yar leen seen doom si ñetti jikko yi yar leen seen doom mu jàng alxuraan karim mais macha allah yar leen seen doom ñu roy waa kër yeneen tamit royul leen seen ñu roy parce que dafa solo di ñëwaat rek pour nga wax si si temu tey bi si jàmm asalaam nga xam ne nit ñi kenn yéeneentul sa morom rek ñu wax ah allah euh, dafa am solo si doomu aadama ndax yonent bi day wax si xadis yi نلن لن تدخلوا الجنة ين دونين دوغا الجنة سار بوبو سوما كو دي جانغات دا فا ملني وال عصر ان الانسان لفي خسر نيت من سي بيرت كون اسكو جالاتي نوي جولي اسكو جالاتي نوي وور دا خ خمنا ني بيرت نان مي لا سي يالا تك مو ام سولو الا الذين امنوا ndax gëm kasse dina doy mune dedet wa amilu ndax loolu dina doy mu ne déedéet wa tawaasaw bil haqq ndax dina doy mu ne déedéet wa tawaasaw bis sabr kon yonente bi pour ñu am jàmm te jàmm ci la lépp xaj tey ñun ñi di wax tey bu fekkonte ni sunu kër yi amul jàmm tey dunuñ mën a ñëw tok fi bay wax wala sa yu ñu ñëwee toog fii bay wax sunu xel du dal ndax ma kan li rajul fi jaw fi bil khalbayn nit amul ñaari xel ben xel nga am te lenn nga mëna jàpp mënoo jàpp ñaar moo tax yonent bi ne yéen saxaaba yi lan tadxulul jannatu du ngeen dëgg aljana xataa tuxminu ndëri da ngeen gëm yàlla wala tuxminu du ngeen gëm yàlla sax xataa taxaabu ndëri da ngeen bëggante yonent bi nag mooy sunu roy waay laxat kaana lakum fi rasulillahi uswatun xasanatun kan moo koy am mu ne liman kaana yarjullaah wa yawmil axir ñu ne ko yonent suñu bëggé am jàmm na la ni def mu ne alaa adallukum ndax duma len tekta ala shay'in sidar iza faaltumuhu su ngeen ko defé takhabtum ken du gis sa morom di ka bëj ñu ne ko mooy lan mu ne afsu salam ngeen sekk jàmm te pour nu sekk jàmm bay lay ci ay jàngale ko ñu am jàmm daf ne wa usikum ma ngi leen di dénk bay lay bo daa ngi ay jàngalem ñett la wax wa azurukum maa ngi leen di xool ni mu toll ak dayoo bi mu toll mu fekk ay saxaabam ne maa leen di ziar wa usikum maa ngi leen di dénku an taj alu ngeen def bay na kom seen diggante mu nekk ko alma xabbate bëggante ñu ne ko lu tax mu ne fa innal ahlal jannat waa aljana ya taxaabuna doona bëggante kon bëggënte am na solo ndax ñun ñii fi nekk ñëpp suñu bëggantewul fii du am jàmm parce que nit ak moroom nitam dañu war a mel ni bâtiment mhm. al muhminu lil muhmin kal bunyaani yasuddu ba'duhu ba'dan tey bâtiment bi nga tabax sax mhm. bu fekkoonte ne mhm. bâtiment euh, birig bi nekk si suuf buggul bu nekk si kawam tegu ci moom kon bâtiment bi du ci taxaw moo tax maam bàyyi laay ne wa wa wa taj alu ngeen na ko seen wala taj alu bu leen def bay na ko seen diggante al adaawata noonu mooy xuloo ndax ñëpp xam na ne ñaar ñu xuloo ku ci njëkk génn àdduna safara mi lay xaar laay ne bu leen def seen diggante noonu wala baax daa ak bañante parce que nit kenn du ko bañ mais am na lu ñuy bañ si nit mooy jikko nit boo ko bañee rek yàlla nga bañ ndax yàlla moo ne wala xat karam naa bani aadama yàlla moo teral doomu aadama kon nit kenn war ko bañ mais li nekk ci moom te yàlla defu ko ci muy jikko ja mooy yàlla loolu la bañ kon nit loolu ngay bañ ci doom moo tax bàyyi laay ne wala taj alu bu leen def bay na ko seen diggante al adaawat noonu wal baxdaa ak bañante ñu ne ko lan lay def mu ne antum yéen kuntum nekk ngeen ixwaanan ay mbokk ngeen kon lii mooy indi jàmm lii buñ ko defee rek jàmm day daal di am seen diggante macha allah. baarakala yow Oustaz ah, yal na yàlla fayal ñu la. amiin ci Seydina Mouhamed amiin yaa rabbi kontaan lool nag si si xam-xam bu leer gi génn. amiin amiin lii tey gone yi buñ ko déggee wallaahi la am dinañ delluwaat ginnaaw. dëgg dëgg dinañ delluwaat ginnaaw lool. Mm-hmm. Mm-hmm. di ñaan yàlla rek yal na yàlla barkeel. amiin soxna kii Oustaz tey boo amoon conseil bi ngay jox ndaw yi. Mm. lan lay doon parce que comme dañoo ne l'éducation conseil bi ngay jox ndaw yi jeunesse bi lan lay doon Euh, conseil bi may joxe daal mooy lu dul diine duy teggi loolu lu gàtta lool mais ëmb na njariñ bu bari lu dul diine duy tegin conseil boobu daal moom laay jox ndaw kenn ku si nekk sa sëriñ bi nga gëm muy maam borom Touba maam Alaaji Malick maam Baay Seydina Limaam kenn ku si nekk nga gëm gëm ko mais li ëpp solo lëm la digal ci lu baax nekk ci ndax mag ñi jëf ju bon indiwu leen fi jëf ju baax rek moom moo leen fi indi kon kenn ku si nekk la nga la nga war a def ci lu baax rek mooy ndaw ñëpp ñu góor góorgóorlu si diine ci ndax ku xool almeeri yi âge bu nekkaan kon ndaw ñi la seytaane gën a soxla mais seytaane ñun ñu xeex ak seytaane ndax yonent bi day wax si xadis naan su ma demee taxaw ne di julli seytaane day taxaw ne su ma ne su ma leqaamee ba war a kàbbar rek day jooy lan mooy tax mu jooy day gis xéewal gi nga xam ne moom la or ak urus bi nga xam ne moom la yàlla di xëpp sama kaw bopp muy wàcc sama kaw tànk ndax su ma nekkee ci lu baax loolu lay taxaw ne kon moo tax julli am solo def lu baax am solo kon ndaw ñëpp daal dama leen di woo si ñu jàpp si diine ci ndax lu dul diine duy teggil allahumma salli ala sayyidina muhammad di ko jaajëfala ah, mu doonoon Serigne Medoune Laye ñu dalaloon ko fii nag ah mu wax fi nag ay kàddu yu am solo di la ñaanal lépp li mu fi wax rek yàlla na ko yàlla nangu waa ah. ñu yàgg teewee ay appel appel ah si barke Seydina Issa Laye kon nuñ koy defee rek saa su ne amoon mbégte ak contentement te dale suñu ko laaj. kon di la wax ne nga ñaanal waa SSTV macha ñoo doon interview nga sànni si kàddu rek. ah jërëjëf macha allah waa SSTV. macha allah ñu ngi leen di ñaanal bu baax di ñaan yàlla sunu borom subhanahu wa taala télé bi yàlla na gën a kawe si télé yi. amiin fi nekk yàlla barkeel leen. amiin yaa rabbi allahumma léegi nag mooy yéen dañuy yëngu dem. defe naa képp ku ci ñëw gëm nga ne yàlla kenn la. gëm nga ne lépp lu ci am. sama borom a ko dogal. loolu maa fi samaawaati wa maa fi al-ard. yàlla maa ngi ci diggante asamaan ak lépp yàlla. li mu naan képp koo xam ne. nangu war sama dogal. bi rek ama asamaan ci kan moo am geneen suuf bu dul du yàlla yow war a dafa sa tànk yi maa nga dawal sa daam yow bokk yii ji mu ne bu dee da nga yaakaar ne am nay pexe ba nga xool ci sama suuf ba ma dem sama asamaan ci nga épuisé planète boo mën a wàcc asamaan yàlla la ci ku ma mun samay defal bul dox sama réew bul sama asamaan fii xale kenn wax ma أتقتلون رجلا أن يخرج رضي الله خدعكم من بينات يقدمه وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو المسلم الكذاب gëm naa xam loolu maa ko jëfee ngeen. lan li maa ko jëfee ngeen. mooy benn waay yoo xam ne ci nit ku ci raw na la bokkoon. gëmul yàlla ñu daal ko nëbb. waaye waaye bi ñuy bëggale nit koo xam ne waxul lu dul yàlla mooy sama borom. ba pare wan leen ay firnde yuy dëggal wax jooju wax waaye yaay leen ma jox leen xel waaye yàqu naa jaral fa alayhi najubu. Déew yaay ak ne Seydina Limaamu moo ko yónni bu dee moom dafa safale yàlla bu ëllëgee moom du sa boor waaye yëpp dara dara waaye yëpp ñun bàyyi naa ko baax ci aaya ba yàlla kenn du wax yonent waaw bu ne ma la démb mën a tey sànq bi nee na toog bi mu toog fii tey ndax su toogal Seydina Isa ñu jëkk doon xale wax Seydina bi ma mu ne la Seydina ma ñoon toog muy ma ñun moom Seydina Mouhamadou Makhtar ibn Seydina Madior mooy caatu Seydina Madior ñu ñaari xale la Seydina bi ma ba mu ma déggee sëñ naa Issa aussi laa bëggoon ñëw moom laa leen wax moo amee la ba mu ma déggee Seydina Mame Alassane ñëw bi mu ma déggee Seydina Abdoulaye ñëw bi mu fi jógee la Seydina Mouhamadou Makhtar comme Seydina ma jox ñëw yàlla yàlla yàggal waaye xool yàgg na yi ba wér dëppaale fa ak ngërëmal yàlla ak yeneen bëgg nee na yooyu dañ ci bàyyi xel ngeen di bañ rek waa laayeen bi xew déedé dañuy màggal oote boo ki nga oote ba mu oote borom dafa oote lii ma oote képp ko ko oote te moo ko jëkk a waxal boppam mu ne lii ma oote ko ko oote Nigeria, comme en Afrique orientale, en Guinée, dix portugais ont au Sénégal. nekk bàyyi laay am na ñoo fi fekkalante woon. yàlla bu dëggoon a dëggal ne moom mooy vrai ñoom ñëpp kay yéene. sëñ naa li maamu kese la apporté sax ba aw ay kay gëstu téeméeri ak am ñeent fukki ak ñaar. waaw. xam nga dafa leen delloo ci gannaaw noonu yëpp soññu ko wa kazalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwwan mbokk yi dee beneen bi mu ne minal muslimin wa kafaa bi rabbika hadiyan wa nasira tubaab yi dee ñoom ñëpp alku tey bàyyi lay des kon suñu ko roogee ba tey moo tax nee na jéggalul ma mbooloo mi si xaar bu yàgg waaye yow la tafsir bi que yàlla leen ko yàlla defal tafsir bi que dafa xaar bi maa ko li yëpp bi may la yee li mu jéggaloo xam nga lan la ko mu ne ko li maam ah yaa ngi yoon bay lay nekk tafsir yaa mën a xaar mu ne ko bu dëggal soppalaku naa lu nekk ngir di la xaar waaye lu maamu yaa yàgg yoon mu ne man lañu tudde woon al muntaha yeneen te mu ne defal nañ la bisaara waaye man kese la ñu askanale mooy li ñuy xaar Hallelujah. sama sër. ay ko sama sëriñ ndax loolu wérul kan moo sañ ne rek sama sëñ bi fekkoon li ma waaye yow mi gëm kooku nag ba pare bi sukkandiku ci moom ne yaa ngi wér di li maamu kooku teg ak def bu dee sañ duumaa julli na ci moom bu dee moom àll bi ma ne teg ca lii mu joxoon jële su ne bu ñëwee moom moom moom ñëw moom ñooy dëppoo ci biir gàll. laa yee nan la ñuy ci biir gàll أولياء الله يدخلون زمرتنا بالورد يأخذون am حلوا الأمور تلك حتى الإمام العالم المهدي في آخر الأزمنة المهدي. آمن الإمام ياسين ma ne wàllu yu yàlla yëpp dinañu jaar ci mbir mi dinañu jël sunu weer daal. ba ci li nga xam ne mooy élément bi siiw la ñu ne kaa xam maa diw mu ne fan lay feeñ ci aaxir dama mun na mën de tegtal bi ma leen di jox mooy bu limaamu andee leneen loolu wér doo ci jaan bàyyi leen ka te xam ne du moom yàlla def teelee min allahi ilallah ak taxan wal azim ba bàyyi lay def teelee salaatul faatiha bàyyi lay def teelee daal di leen fekk si téeméeri la ilaha illallah kon wax moom alaaji mu xale bi dëppoo na seydinaa bi moom li mu xale da loolu bokk ci le yaakaaral cheikh moo tax ma ne yàlla defal na ko ndimbal bañ ñi mu fekkante ñëpp dañ ko armal ku ñu saana wax wax mbiru sëñ bi la am ci limaam nga ne ah ñëpp ko meloon bi moom des na kenn sànq bi nee na damay fàttali kaw ma fàttali man la yàlla dogal tey ndëppal uus yi tegu ci sama bopp sama bàyyi dañ naa isaa mi dëkk uutu sama maam am fanweeri ak ak ñett nekk comme les en effet par du vent et brille jusqu'au pousson, ainsi on sera de l'avènement du fils de l'homme l'homme waxul fils de l'homme où que soit le cadavre là se rassembleront les moutons waa Dakar mu ngi beneen sama tegtal bi ma leen jox mooy samay fee nit ñi nit nekk fu mu dëkk ndax dalul moo tax ma ne du ma fekk kenn waaye yëpp dinañ ko fekk imaam yi ñëw ngir ñëw baa nga ñëw ngir xew si tey bu sañ yoon na dëkk feneen wala mu làqu ñu feneen ñu ne da doon ubbi ndimbal rabbul masjid wala maarib لا إله إلا وفقك حسن وكيلة يلا من يوم مو مو بنت مو مو سو نكو رئيس المنتخب يقف الزين بقول مو مو سعر مو سعر مو سعر مو سعر مو سعر مو سعر يا إمام الناس يا إمام الناس gaa xam al muntasar jamono toog waaye naaj yu leen toog naaj yu leen toog yàlla yu lakk jàngoro yu seen yaram bakkaar yu seen yaram wéral leen mujjal leen si ah, naaj saxaar ci bakkaar la li nga xam ne moo ko defi muy seen laaj moom nee na nag beneen bi yàlla dafa nekk beneen sax ñu ne ban la mën a def mbokk yi gis ngeen ko ah lii lañ fi tey ñu ngi fii ci Yoff ci appel bi xewoon ah ngeen gis ko waa appel bi fi xewoon fii ci Cambérène ñu gis ko mbooloo bi ñëwoon loola mbooloo bi ñëw wuy si nañu sëñ bi ñëw na ah wax nañ tamit si thème bi nee na le rôle de la jeunesse kon mbokk ah le rôle de l'éducation di waxee naa ndaw yi nañu gën a yokk seeni yar ah ndaw yi nañu gën a am teggin yi lañ leen fi indiloon fii tey ci Cambérène ci ubbiteewlu appel bi si ngoon incha allah rabin dinañ dem Ngor waaye suba suba nga xamante ne moom mooy deuxième jour appel bi dinañ dem fële sa yoof incha allah rabi ñu na cee ànd ak ak waa SSTV ak toute l'équipe kon nañ koy defee saa su nekkee rek di lañ jot di dajee fii ak ngoon incha allah. njàkkere jaayum kër wala terrain ci mim réew jeex na fi wala location moo xam appartement wala studio ak social shopping immobilier dañu lay jaayal sa produit cën na mu gën a gaawee tubaar fakal mettre la en rapport ak sunu ay clientel ñi nga xamante ne dañoo soxla kër wala ñu soxla terrain wala bëgg louer appartement wala studio bu ko defee ñu ñëw sa biir kër daal lay fotol sa kër wala sa terrain. wala sa appartement wala sa studio si ay photo yu euh, l'air nañ ak ay vidéo yu doy voir dal que poster posté sous sunu page bi de social shopping immobilier bu ko defee yen ngeen wote ci 77 417 77 40 wala 33 835 08 67 ak social shopping immobilier jay keur neex ci rewmi